jëlañ na nettali ci yonent bi sol alayhi wa sallam nag mu ne am ay yére yu bees sol ko wax lii dana nekk ci zimmatullah ak jiwaaruhu ak itam kanafullahi moo xam ci bu dundee ak ci bu faatoo mooy xam ne dafa am ay yére yu bees bim ko solee mu ne alhamdulillahi allazi kasaani ma uwaari bihi awrati wa atajammalu bihi fi xayaati alhamdulillahi allazi maa ngi sant yàlla mi nga xam ne kasaani wodd na ma maa ci li nga xam ne uwaari dana suturaale bii ci moom awrati sama awra waaye waa ata jëmmalu bii danaa ci mën a taarloo itam danaa ci mën a waaje fii xayaati ci sama dund a ah, man de maa ngi sant yàlla mi ma war sëgal yére yu rafet yu bees yi làq na sama awra te mën naa ko waaji génn ci samay nawle bu fekkee nag ba nga yoroon yàquwutam nga jox ko nga daal koy sarax keneen koo tane dimbalee ko ko waaw dañ naan kooku daal kaana fi zimmatillahi wa fi jawarillahi wa fi kanafillaahi xayyan wa mayitan